représenté ci Sénégal ci àddina te ko wax itam sa xel dafay dem ci sport ngir nag waxtaanee ko delloo ko itam njukkal dañuy dalal tey ak mbégte mu euh, suñu mag euh, Mbaye Jacques Diop di journaliste nekk itam euh, conseil technique en communication responsable des plateforme ci ministère des sports Mbaye Jacques nga jege woon lool itam président Lamine Diack ñu ngi lay nuyu di la ko jaale am mbégte dalal la ci démb ak tey ngir waxtaanee ka waaw jërëjëf ci euh, ñàkk président Lamine Diack bi nga xam ne sunu borom euh, jëlaat na ko moom moo ñu ko indiloon jox ñu ko mu nekkoon mbégte ci ñun mu nekkoon fierté ñu koy jaale Sénégal di ko jaale askan bi yëpp di ko jaale le monde sportif di ko jaale le monde politique di ko jaale aussi le monde administratif. Mm-hmm. di ko jaale bépp Sénégalais di ko jaale aussi le président Souche parce que xam nañ ñoom ñaar rapport yi amoon je connais bien. Mm-hmm. parce que gis naa ñoom ñaar ñu toog di waxtaan. Mm-hmm. Euh, suma xarit Assane Samb bi nga xam ne papa ji wàcc na liggéey. Euh, di ko ñaanal yàlla di ko ñaanal xolu muñ moom njabootam yàlla teg euh, loxo ndey joram ci seen kaw. Mm. di ñaan góor gi aussi yàlla teeru ko firdaw si jannatu yu gën a kawe daal. amiin alors euh, ni ma ko waxee euh, Mbaye Jacques euh, Lamine Diack ku représenté woon lu am solo la ci Sénégal ak ci àddina ku ko wax sa xel dafay dem ci sport wante mbay Jacques wax nga ko sànq am na yeneen facette ci moom ndax itam am na une carrière administrative boo xam ne bu am solo la ci Sénégal ñu tàmbali ak mbay Jacques ak tàggat yaram carrière sportive ci wàll athlétisme surtout loolu ci mën a wax. waaw euh, président Lamine Diack defe naa ni euh, am na ñoo xam ne sax ñoom ma ci gën a outillé pour wax ko ñoom a gën a mag pour wax ko xëy na côtoyé naa ko mais am na ñoo xam ne mais euh, président la Lamine Diack dafa doon dirigeant boo xam ni dafa moon parcours exceptionnel mm-hmm. parce que Lamine Diack ñëpp xam nañ ne Rebeuss la juddoo te Rebeuss dafa nekkoon benn proximité entre cent mètres ak stade Assane Diouf mm. mu nekkoon fa ak di jàngee aussi lycée Van Vollenhoven nekkoon aussi un très bon sauteur en longueur. Bah, il avait même battu le record de France du saut en longueur. À l'époque, on n'avait pas, on n'était pas aux années des indépendances. C'était, mm. donc, c'était l'association de l'Afrique occidentale française. Mm. Euh, Lamine Diack ci wàllu woowu aussi mu nekkoon aussi un bon volleyeur nekkoon aussi un bon footballeur boo xam ne après dinaa la envoyé sax euh, ci réseaux sociaux yi bi muy football ak yooyu yëpp. Mm. mais ci wàllu woowu aussi mu jóge fa nekk directeur technique national de football bi mu jógee nekk directeur technique national de football ànd ak Mawad ak Jo Diop ñu dem ci euh, euh, Tunis 1965 ak euh, Asmara 1968 parce que nekk na directeur technique national de 1964 à 1968 mm-hmm. après ci la fa jóge nag dem athlétisme mu àndagoon fa benn seexam boo xam bu ñuy wax caam papa Gallo kooku tamit athlète la woon comme moom ñoo jàngandoo France mm. ñoom Abdou Sey Lamine Diack nekk fa papa galo nekk président de la fédération sénégalaise d'altitude ñu créé ko en 1961 1960 astafurlah 63 moom président Lamine Diack ñëw nekk fa en 1963 comme secrétaire général en même temps nekk directeur technique national mm. ci la en 1964 c'est la première participation du Sénégal aux Jeux olympiques de Tokyo ci la ñoom u Gakou ñoom Ndiaye Tokyo ñoom Mambay ñaa ñoom ma Mané ñoom Daniel Thiaw bi doon def oto yëpp kii mm-hmm. donc Lamine Diack joge fo nekk athlétisme donc bàyyi toutes les activités nekk athlétisme li mu nekk athlétisme mais empêché aussi mu nekk un dirigeant du foyer France Sénégal. Mm-hmm. parce que football na foyer France Sénégal mi mu fay football ba nekk fa dirigeant aussi nekk dirigeant athlétisme. ba ñu dem ba en mille neuf cent soixante douze ñu a réfectionner le stade Iba parce que boobu stade bis stade Iba Mar Diop stade cendré la woon mm. ñu def stade en tartan boobu Lamine Diack implique président Lamine Diack impliqué nous dans le processus de l'athlétisme mondial l'athlétisme tout ça organiser ce qu'on appelle les premiers Jeux Afrique IESA mm. premier jeu Afrique USA yooyu mi ngi amoon en 1972 ci la ay athlètes yi xam ni par exemple muy ay Yuri Shifter ñoom John Akibwa ak yooyu ñooñu xam nga c'était les Éthiopiens ak Kenya yeeg yooyu la face du monde bi ñu jógee ci Afrique USA bi bu màcc mu ne il faut créer une confédération africaine d'athlétisme parce que à l'époque ça n'existait pas. Mm-hmm. fii lañ ko créé à Dakar. d'accord donc mu nekk fa le premier président de la confédération africaine d'athlétisme. en 1973 ñu organiser aussi à Dakar les premiers championnats d' Afrique d' athlétisme boobu xale bu ndaw laa ci pañe yi. Mhm. président Lamine Diack aussi organiser ko mu nekk un succès éclatant ñun boobu je me rappelle benn médaille la amoon muy Mariam Boy au 400 mètres plat mu nekk médaille d' argent médaille la amoon. Mhm. mu nekkoon une réussite sur le plan organisationnel donc mu fay jógee di dem ba en 74 euh, mu nekk aussi membre du comité national olympique sportif sénégalais ba nekk président comité sportif sénégalais de 1985 à 2000 mais ci wàllu boobu yëpp mi ngi président confédération africaine d'athlétisme mais nekk aussi vice président au niveau de l'IDASAF à l'époque IDASAF moom mooy association internationale des fédérations d'athlétisme mm-hmm. boobu organisme boo xam ne la bon moo ko gérer boobu moom moo nekkoon ba de ba quatre vingt dix moo nekkoon vice président ku ñuy wax Primo Nebiolo hmm. premier Primo Nebiolo génn àdduna bi mu génnee àdduna Primo Nebiolo ñu ne donc dañuy xool kan moo war a assurer intérim bi ñu dem à une assemblée générale extraordinaire en décembre quatre vingt dix neuf je me rappelle très bien hmm. ñu def ko à Monaco bi ñu ko defee à Monaco ñu ne Lamine Diack moom la ñuy assuré loo intérimaire donc bi ko assuré intérimaire bi mu assuré ko parce que Nabia Lo mandat mi ngi waroon jeex année mille neuf cent euh, astafurlah deux mille un la waroon jeex au congrès d'Edmonton au Canada bi ñu ñëwee au congrès d'Edmonton au Canada ñëpp xool ne durant les deux ans en tout cas yi président Lamine Diack assuré intérim bi amul benn tolof tolof amul benn jàq-jàq te gis nañ ne sax dafa gën a jox doole athlétisme. Mm-hmm. et ko gën a jox aussi audience sur le plan international ba pare démocratiser athlétisme parce que moment boobu jigéen ñi daaw ñu pratiquer yenn yenn discipline yi góor ñi ko doon def la muy daaf ne non góor ñi li ñuy def jigéen ñi dañ koy def. Mm-hmm. moment boobu Sénégal benn voix la amoon Mali bi ñu jege sax amoon na deux voix. États-Unis amoon huit voix Russie amoon huit voix France amoon huit voix Allemagne amoon huit voix Lamine Diack nee na on va un pays une voix. ñu fal ko à Edmonton en deux mille un ñu fal ko comme président de l' de l'EDAF en deux mille ci la dafay parcours am euh, def euh, les championnats du monde euh, d'Edmonton ci la Amy Mbacké jële sa champion du monde donc xam nga cerise sur le gâteau. Mhm. ñu fal la Amy Mbacké nekk champion du monde à Edmonton. ñu dem aussi en 2003 mu organiser les championnats du monde de 2003 à Paris ñu jóge fa aussi dem à Helsinki en fa dem à Osaka en 2007 jóge fa dem aussi en 2009 à Berlin jóge fa aussi ñu jóge Berlin en 2011 ñu dem à Daegu en Corée jóge Daegu ñëw en 2013 à Moscou après nag bi ñu ñëwee Moscou à Beijing ñu ko organiser cerise sur le gâteau ci le retiré wu parce que dafa bëggoon retiré wu bi ñu demee. fële lu mu tudd en 2011 à Taïko gars yi ne ko non li nga def continuer nga gunge ñu ba ñu dem en 2013 2013 gars yi nax ko mus ko mën a ñu mën a ne ko continuer ba Beijing comme que aussi yaaraa les championnats du monde de Beijing continuer mhm. donc mu continuer dem ànd ñoom après 2015 nag mu ne leen nag sonn parce que aussi man je dois me consacrer à ma famille parce que durant pratiquement plus de cinquante ans aw ma jot maa ngi ci sport bi maa ngi ci maa ngi politique bi maa ngi ci bi administratif il faudrait que même su fekkee ne tey samay doom màgg nañu mais ma toog ci sama wetu sëj sët waxtaan ak ñoom hmm. c'est comme ça qu'il a quitté et quand qu'il quitté l'IAAF il avait laissé un budget boo xam ne mënoon na dundal IAAF e au moins plus de trente ans hmm. en termes de de de valeur ajoutée surtout en termes de recettes de hmm. sponsoring donc mu nekk koo xam ni kilifa boo xam ne la am na raaya bu nekk sur le plan sportif am na am na marta martabal bu nekk ci ci sur le plan sportif hmm. parce que ku doxal IAAF ba moment boobu ñu ne sax il a démocratisé l'IAAF parce que moment boobu IAAF boobu pratiquement yenn pays yi amuñu foon voix voix au chapitre hmm. moom bu ko daan fal sax daraan bañ consensus day wax ni non nañ dem au vote si c'est un vote secret ñu xam man ñaata voix laa am ak ñaata parce que gars yi dañ ko bëgg fal par acclamation mu ne non nañ dem dina xam ndax moom comprendre nga ñaata. Ah, dina dina a. nit ñi wóolu nañ ko ba léegi ou pas. waaw mm-hmm. boobu nit ñi wóolu nañ ko mais dafa leen wax nañ dem au vote pour mu mën a natt boppam segg boppam xam nga di nga ànd ak ay lit ñu ne la acclamation am na ñoo xam du ñu kontaan. waaw c'est mu doon dirigeant boo xam ni vraiment sur le plan sportif yaakaar naa ni li mu fi def ci athlétisme moom euh, dootul naxasaay ah, parce que tout simplement. Euh, kilifa goo xam ne la te lépp lu mu nekk noonu yéen a ngi fàttali que dañ ko nommé woon ci benn décret. Mhm. décret boo xam ni c'était le 18 juin 1969 c'est le décret numéro 69 713 maa ngi ko jàpp ba léegi. Mhm. ci lañ ko di 18 juin 1969 ci lañ ko njëkk a nommé commissaire général au sport boobu c'était même pas ministère on devait commissaire général au sport. ñu nommé ko le président Lamine Diack donc jaar-jaaram moom ci sport je pense que biñ ko falee sport. parce que biñ koy fal sport boobu dafa fekk Sénégal jóge ci jafe-jafe. Hmm. jafe-jafe yu métti métti avec la grève de 68. waaw les événements léegi boobu boobu boobu président Lamine Diack. Hmm. mi ngi nekkoon euh, inspecteur mi ngi nekk inspecteur des impôts et domaines. d'accord waaw ci waxam mu ne woon boobu ñu ngi doon fay cinq ministres moom moo doon yoroon cinq salaire yu cinq ministres. Hmm. léegi ñu jóge ci événement 1968 yi. boobu Lamine Diack amoon na autorité morale sur le sport sénégalais mhm. parce que dafa réussir woon vraiment ay médiation yu bari yoo xam ne moom moo doon fay taal bi mhm. parce que boobu léegi nag ñu xalaat ne Léopold Sédar Senghor moom mu xalaat ne am na koo xam ne daal kan la war a xalaat ne moo war a mën a tey vraiment apaiser ce rapport avec la jeunesse dakaroise et la jeunesse sénégalaise léegi les gens ont porté leur choix sur le président Lamine Diack boobu la Diack mi ngi nekk un euh, jeune excusez du terme mm. inspecteur des impôts et domaines mu nekk un haut fonctionnaire du ministère des sports mm-hmm. boo xam ne il était très très engagé dans l'encadrement du sport du Jaraaf et de l'équipe nationale même par Lamine Diack boobu les gens le considéraient comme un pédigré parce que il avait impressionné et convaincu Senghor parce que le mouvement sportif était en évolution le mouvement social le mouvement étudiantin mais xamoon nañu sport facteur de d'union la facteur de paix sociale la ñu dem jëli Lamine Diack en 1969 le 18 juin ñu nommé ko par décret hmm. présidentiel commissaire général au sport noonu la nekkee au ministère des sports ba bi mu fay jógee dem au la condition euh, de la condition kii de la condition humaine alors Lamine euh, moom mu it euh, fi nga chuté mooy euh, dugg na ci gouvernement nekk na itam secrétaire d'État à la jeunesse et sport lata muy nekk maire de Dakar Lamine Diack nekkoon finalement ku ràññeeku ci wàllu politique ndax nekk na assemblée nationale vice-président carrière am ci wàllu politique Mbaye Jacques loonu ci mën a wax itam waaw carrière ci wàllu politique Lamine Diack dañ ko fal xam nga boo nekkee sport dangay am da ngay nekk da ngay nekk xaritu xale yi. waaw bi ñu ko falee euh, commissaire général au sport Lamine Diack Senghor war dem seetaani final coupe du Sénégal. Mm-hmm. léegi parce que ñemewul génn. waaw ah, boobu réew mi dafa tàngoon. réew mi tàng na trop trop trop trop trop trop c'est le président Lamine Diack qui tale allé chercher le président Senghor au palais ànd ak ay xale ñu conduire ko escorter ko. Mm-hmm. waaw. yóbbu ko ba stade Demba Diop Lamine Diack di gaay parce que Senghor yaakaar dañ koy yuuxu gars yi dañ koy wax même agent secret yeeg renseignement yi bul dem nañ la yuuxu Lamine Diack ànd ak ay xale. Mhm. ñu ànd ak moom gunge ko ba stade te di ko tàcc. mu ñibbaat nu match bi jeex ñu waat ko ba tàcc ko. Mhm. loolu nag créé ay jaloux aussi. Mhm. dans le milieu politique parce que milieu politique bu fekkee ne yow comme tu es dans les bonnes grâces du président la république. dañ lay xaw a xeex. dañ lay xeex kay. ci lañ ko commencé xeex parce que Lamine Diack def na au ministère des sports quatre ans. d'accord waaw 73 dafa jógee 69 ba 73. Mhm. donc réussite boobu pour un jeune ministre xam nga mu nekk ay sources d'ennuis aussi parce que sources d'ennuis yooyu ñoo koy topp topp topp topp lu bëree bari bari Lamine Diack lakk nañ sax këram. ah oui ndax politique oui lakk nañu këram amitié ndax politique parce que moi j'ai tous les archives demoon naa moom genre cible prioritaire la pour les politiques parce que engagement politique am boobu temps yooyu ak fonction gouvernementale yi li mu yoroon ak politique bi <laughs> amoon na doole. ci li nga ci xam lan moo ko dugal ci politique. Lamine Diack lu ko dugal ci politique mooy Lamine Diack xaritu xale yi la woon xaritu ñëpp la woon xaritu sportif yi la woon. Hmm. et le président Senghor avait besoin au niveau de l'union régionale du parti socialiste de l'UPS à l'époque c'était l'UPS l'union progressiste socialiste. Mm -hmm. il d'un leader confirmé Lamine Diack comme que moom pratiquement les jeunes du plateau à la Médina Gueule Tapée Fann Sicap ñëpp respecté woon nañ ko ñëpp joxoon nañ ko cër te ñëpp aussi kilifa la woon donc ñu ñu ñu ñu ñu wax ko il faut nga engagé wu en politique pour jàppale ñu parce que boobu il sortait d'une année très délicate une année sociale très très très très mouvementée avec la grève de 68 mm-hmm. mu le premier le secrétaire général de l'union du parti socialiste de Dakar. ñu koy ñu koy dugal ci élection muy gagné élection département astafurlah muy gagné élection députation yi. parce que mmh. c'était le le le représentant de Dakar. donc nag bi mu defee quatre ans au niveau du ministère des sports ci lañ ko yóbbu aussi pour ñuy wax ne la euh, le ministère de la promotion humaine. Mm. waaw léegi Lamine Diack di politikaale léegi nag gars yi aussi di ko di ko faagaagal di ko xeexal mais xam nga bu la yàlla bu yàlla ànd ak yow. Mhm. kenn mënul dara parce que Lamine Diack en 1976 boobu mi ngi def lu rëy ci promotion humaine ñu bari xamuñu woon promotion parce que moom nitu nit ñëw danaan dem ci àll bi toog waxtaan ak nit ñi. danaan dem donc le sport moo ko mayoon. Mhm. léegi en nag mu démissionné du gouvernement parce que kenn yaakaaru ko woon. Mhm. mu démissionné vraiment du gouvernement. lan moo sababoon mu démissionné. non boobu xeex ci metti na. Hmm. ñu koy xeex di ko di ko faagagal lu nekk mais telewul mu démissionné ci gouvernement mais avant muy démissionné nit ñi bu ñu fàtte ni jàpp dafa amoon base populaire à Dakar. Hmm. base bi moo doon moom dafa nekkoon benn genre figure emblématique du système senghorien ni ñu ko doon waxee. moom ak ki ñuy wax lu docteur Samba Gaye docteur Samba Gueye moom moo nekkoon président du conseil municipal de Dakar à l'époque on disait pas maire on disait le président du conseil municipal de Dakar. Ah, parce que boobu maire yi gouverneur yi presque ñoom ñooy kilifa foofu. Mhm. donc Lamine Diack bi Samba Gueye génnee àdduna Lamine Diack remplacé ko ay nefa boo xam ni au commune de Dakar bi euh, presque moom moo doon couvrir l'ensemble des agglomérations urbaines de la région de la région de Dakar. à l'époque mhm. à l'époque boobu ay géejawaay yooyu yëpp. ay Pikine ak yooyu yëpp ci commune de Dakar la bokk donc gis nga loolu. Mhm. mu nekk le président de la de, du conseil municipal de Dakar. Mhm. mu nekkoon benn genre métropole ak ou bien agglomération boo xam ni léegi nag position boobu. Mhm. mu nekkoon xawoon nag aussi tiital politicien bi ñu kii day am ambition présidentielle ba su fi Senghor jógee. yaa ngi te gis nga les constructions là. Euh, de l'hôtel de ville de Dakar bu ñuy wax. comprendre nga. Lamine Diack gars yi dañ ko doon faagagal ne daf ko engagé sans autorisation de la tutelle. Hmm. ñu naan ay faute de gestion ñu il faut ñu révoquer ko ba pare ci loolu ñu révoquer ko en 1978 ñu xeex ko révoquer ko. d'accord ndax ci mairie bi parce que ñu ne engagé na ay travaux sans autorisation de la tutelle boobu ñu ngi wut rek pour faagaagal ko. Hmm. pour rek parce que mu bañ a nekk un potentiel présidentiable parce que loolu moo doon alibi bi bu ñu branlé woon maintenant. il faudrait aussi tenir compte que Lamine Diack aussi Fatinal compte sur le plan sportif mmh. la réforme de Lamine Diack de qui a donné naissance à des clubs comme le Jaraaf la Linguère le Casa Sport euh, les équipes comme euh, le Ndiambour de Louga et le Saltigué le Diamniadio Sporting Club c'est lui qui a initié la réforme moom moo ko initié mmh. donc biñ ko génnee ci ci ci ci ci kii bi nu mu ci ci ci conseil waaw reba ko ko au niveau de la mhm. mairie Lamine Diack aussi fonctionnaire la ministère de finance le passé tout sa carrière comme receveur des domaines des impôts mu mu dellu continuer ay carrière am xam nga ñuy boobu bi mu continuer carrière bàyyiwuñ ko comprendre nga. taxul ñu bàyyi ko ñu bàyyi ko mhm. donc ñu ne ñu fabriquer benn dossier ne il faut mu rembourser waaw au trésor benn trou boo xam ni benn somme d'argent boo xam kenn xamul lan la boobu nag moom xamuloon li xew mais c'est trop tard que ci la xam ne lii yëpp parce que moom amoon na ay ambition politique yoo xam ni peut-être que dafa tiitaloon ses adversaires ses potentiels adversaires hmm. léegi terewul aussi bàyyi politique parce que am na base am bi am na base Rebeuss Dakar Rebeuss Médina Fass Gueule Tapée Colobane yooyu yëpp parce que ñëpp a ko bëggoon hmm. parce que ba Sicap Lamine Diack nekk député aux, aux, aux élections législatives de 78 il est élu député ñu renouveler ko mandat bi en 93 ba 93 xam nga ci la mandat bi di tombé dans l'escarcelle du PDS dem ci euh, ñoom Pape mm-hmm. mais durant période bi mu exerce yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp qui de parlementaire terewul ñu ngi koy xeex parce que Lamine Diack occupé na le premier le, le, le poste le premier questeur à l'Assemblée nationale mm-hmm. puis celle de premier vice-président. Mhm. parce que période boobu dem si yàlla docteur Daouda Sow moom moo doon ki nga xam ni moom moo doon président de l' assemblée nationale. Mmh. et en 1989 il reçoit la lettre de démission euh, du docteur Daouda Sow qui quitte le perchoir. waaw parce que benn pétition la ñu orchestré. Mhm. boo xam ne dañuy wax ne dem si yàlla Jean Collin moo ko moo ko euh, mhm. pour pousse Daouda Sow mu dem. bi mu poussé Daouda Sow mu dem. ñu woo Lamine Diack au téléphone ne ko yow la ñu bëgg a jox assemblée nationale bi de droit mais par principe mu refusé ne moom il a été le premier vice-président de Daouda Sow il refuse ça gis nga donc. gis nga ah mbor ak ah, kóllëre. waaw waaw il veut parce que boobu gars yi ci lañ ko jox ci ci lañu di woo euh, Abdou Aziz Ndaw jox ko boobu Abdou Aziz Ndaw moom moo nekkoon questeur ñu jox ko assemblée nationale. alors que Lamine Diack lañ ko bëggoon jox moo leen dama ko def parce que kii maa doon vice président te amuñu benn xaar ma yàlla maak moom ànd nañu liggéey. te bu ñu ko tegee ci yoon sax moo ko war a wutu. non bu ñu ko war a wutu mais pour des questions de principe il a refusé. donc gis nga gor dafa jafe. Mhm. donc dafa jafe la ñuy wax ci la ñuy wax le de la refondation du parti socialiste. Mhm. parce que opération boobu ci lañ doon wax. les refondateurs et les rénovateurs. parce que man dama bokkoon ci jeunesse socialiste dama bokkoon aussi ci xale yi Lamine Diack yi nga xam ne entre la Médina ak Rebeuss ak yooyu. Mhm. léegi bi ñu réformé ce qu'on appelle la refondation du parti euh, du parti socialiste ñu koy wax les refondateurs et les rénovateurs parce que refondateurs yi c'était Tanor les rénovateurs moom mooy yan ñoom ci bokka mhm. comprendre nga Lamine Diack ne moom du bokk ci benn refondation du bokk en quatre-vingt-un du bokk ci benn refondation. ndax lan mu bañoon boobu ñu ngi wutal Tanor pour mu yëg te Tanor amul woon base amul xamul woon l' appareil socialiste. dem hmm. si àll Tanor ba pare aussi xamul woon les jeunes socialistes et les mouvements socialistes. parce que euh, PS aussi dafa am culture. Hmm. dafa am histoire dafa am tradition. Hmm. voilà gis nga ci wàllu woowu gis nga moment bi mu bañee loolu. ci lañ dem yàq këram lakk ko. amitié lakk këram. lakk këram pour ne dire que politique violence yàgg na fa. waaw bi ñu lakkee këram foofu. terewul mu continuer son action politique ak dans le cadre de so pour dans le cadre du service pour son peuple parce que moom xamoon na ni comprendre nga. Hmm. réew mi tegoon nañ ko foo xam ne teguñu fa sax njiitu réew teguñu fa premier ministre à l'époque Abdou Diouf parce que moom moo ko jiwoon nit ñi mais mu dem ba xam ni comprendre nga. Hmm. dañuy atteindre à la vie de sa famille et ak sa vie moom te luy jaru ko ndax adversité politique. Hmm. il a il a décidé de se retirer xam nga maa ngi fàttaliku. Hmm. ay propos yu mu tëniroon. il est venu il nous a dit ñun ñëpp boobu ak ay militants am. Hmm. je n'ai pas de motivation personnelle en politique. et il s'agit de servir mon pays loolu la waxoon. Hmm. ba pare mu ne ñu il y a que d'autres voies pour le faire. sans avoir à gérer la passion qui caractérise le monde politique. loolu moo doon le discours daje du président Lamine Diack à la politique. waaw moom la délivré comprendre nga. Mhm. Euh, euh, euh, leur solidarité mooy jour bi ñu lakkee këram. Mhm. loolu du ma ko fàtte mukk boobu xale bu peut-être j'étais jeune. Mhm. waaw léegi kon loolu ñu defoon muy lakk këram daf ko dépassé woon selon moom li ko dugal ci politique ak li mu ci jublu. li mu ci jublu voilà xëy na yëf yi daal nekkatul moom ay mbirum intérêt askan wi. askan wi waaw mais ñooñu ko jëloon pour ay intérêt personnel. kon mun nañ ne daf ko daf ko touché woon vraiment. non daf ko tuusoon parce que bu ñu demee bay lakk sa bugg attenter sa njaboot sa ay njaboot. te njabootam a ngi woon ci kër gi. ci kër gi kon yoo xam nga loolu. Hmm. loolu loolu après nag ci lañ defee nag xam nga après ñu toog deux ans en mille neuf cent euh, kii. Hmm. Euh, quatre vingt quinze yéen ngi fàttaliku le trente mars quatre vingt quinze moom lañ doon wax. comprendre nga le congrès sans débat bi porté woon euh, feu Ousmane Tanor au hmm. sein du du socialiste. léegi nag aussi Lamine Diack yaakaar ne moom. Euh, dina ñëw euh, kii dina ñëw bureau politique parce que boobu bureau politique parti socialiste tous les mercredis la ñuy tenir bureau politique tous les mercredis la ñuy tenir bureau politique à la maison du parti. Hmm. ñëppay dem. ok ñoom Abdou Diouf ak dem mais ñu xool ne pendant pratiquement plus de six mois Lamine Diack ñëwul bureau politique. Hmm. donc c' la chaise vide. les gens ont compris que la rupture était définitive entre président Lamine Diack et la politique. donc loolu moo lay wan moom. Euh, après ci la gën a euh, continuer son militantisme sportif qui reprenait ses droits pendant vingt cinq ans pour pour pour pour le militantisme politique parce que moom il a fait presque plus de vingt et quelques ans de mhm. politique. Mhm. taxul mu bàyyi politique ndax wax nañu ni euh, élection présidentielle bu fi jëlee président Abdoulaye Wade loxoom dugg na ci lool mu jàppale opposition bi euh, donc mun nañ ci jàpp ni retiré wu ni ci politique waaye taxul mu génnee loxoom ci Sénégal ni muy doxee. waaw boobu xam nga soo xoolee euh, boo xoolee. Hmm. en 1969. Hmm. c'était plus l'appel de l'État et de la nation. que celui du, euh, du chef de bureau d'enregistrement donc boobu il avait répondu xam nga parce que boobu amuloon attraction politique mais soo xoolee boobu moom da doon so dañ ko solliciter pour mu ñëw liggéeyee réewam vers parce que boobu moment boobu deful politique bi ñu koy nommé ministre donc tu vois. Mm-hmm. léegi ministre da ngay da ngay da ngay politique ñu nommé le ministre. Mm-hmm. mais boobu sa ay compétence sa ay qualité ak sa ay prédisposition sa ay prérequis la ñuy xool. ci wàllu woowu soo xoolee en 2011 à la veille de de de de de, de l'élection euh, de 2012 même bien avant boobu les gens a des gens qui sont venus le voir les Moustapha Niasse les Macky Sall mm. a beaucoup d'hommes politiques qui sont venus le voir parce que xam nga il avait fait une déclaration ne le Sénégal n'est pas le Togo boobu ñuy wax la révolution monarchique mm -hmm. dans une émission du grand jury bu Mamadou Ibra Kane doon organisé 2011 waaw donc un an après l'élection un an avant l' élection autant pour moi nit ñi ñëw seet si ko. xam nga ne ko vraiment ñu daal dañu bëgg parce que dañu bëgg vraiment ñu sceller benn benn union pour l' avenir d'un état républicain et démocratique parce que xam nañ ne boobu Ablaye Wade moo fi nekkoon mais comme que gars yi ñemewuñ ko te président Lamine Diack defoon na déclaration ma doon parce que daloon nit koo xam ni comprendre nga. Mm. dara tiitu ko parce que bi muy wax loolu mooy quand les a Mamadou euh, lui a posé la question mais le monsieur le président on parle de dévolution monarchique mm-hmm. comprendre nga avec Karim Wade kii mu ne que mu ne xam nga lan ko répondre mm. une phrase brusque nous ne l'accepterons pas le Sénégal n'est pas le Togo mm. donc ça c'était un engagement direct xam nga mm-hmm. au nom du salut national opposition bi xam ne am nañu fu ñu mën a wéeru am nañu fu ñu wéeru ñu seet si ko bi ñu ko seetsee président Lamine Diack jóge jóge jóge Monaco ma mm-hmm. boobu aussi ak Alioune Fall bi nekk ci Macky Sall woo ma ma wooyee ma ñëw mu ne ma man de les gens là ils veulent faire de moi un candidat de transition mm-hmm. parce que man maa moom dañu di diisoo lu bari parce que mm-hmm. il aimait la il aimait la contradiction parce que c'est un démocratique il aimait la contradiction des il voulait sax des moom un débat contradictoire mun ngeen nga toog yéen ñaar deux deux jours trois jours. quatre mm-hmm. deux astafurlah deux heures trois heures. Mm-hmm. di waxtaan. Mm-hmm. ma ne ko président mu ne ma loo ci xam ma ko président mu ne ma ne ko ñi la ñi la wax ne dañu bëgg yow nga nekk le candidat de la transition. ma ne ko ñii ñëpp kenn ñama ci affronté Wade te bu jotee bu jotee ñoom ñooy présenté wu ñoom ñoo la gën a bëgg nguur gi wallaahi loolu laa ko wax. ah oui. mu ne ma ah bon ne ko président j'aurais peut-être dans le à l'avenir raison sur mais ñii ñoo bëgg a gën boobu ñoom Alioune Fall Alioune Fall boobu presque il était avec Macky mais ñi doon ñëw parce que ñoom ñëpp kenn ñu newul kenn ñu newuloon affronté Ablaye Wade mhm. man kon ñii di wax ñëpp ñoo la gën a bëgg nguur gi te bu jotee ñu ñu jël ko muy Macky Sall muy Moustapha Niass muy ñoom Djibo Ka muy ñoom Ousmane Tanor Dieng ñëpp parce que boobu ku ci yuuxu Wade yóbbu la kaso wala Wade menacé la mhm. ñu ragal ñu wax ma ne ko ñii ñoo la gën a te bu jotee ñoom dinañ xëccoo kon yow daal da nga ko ne woon bu mu ci dugg. waaw. moom mu tontu la ñooñu. Mm-hmm. parce que waaw après il arrive parce que moom c'est quelqu'un boo xam ne chaque fois boo ko waxee dara da koy jël en considération d'accord après quand il y a eu euh, Benno Siggil xaw ma Benno Sëggal Sénégal Moustapha Niasse ak Tanor waaw ñuy mm-hmm. dem seen kii boobu il était pas au Sénégal mu woo ne ma mais mbay Jacques tu as parfaitement raison ma ko ah lu tax ma ne ma ñii ñoo gën a bëgg nguur gi que kii parce que xam nañ ne yow ñoom nga affronté ak kii et vous candidat du point de vue crédibilité mais ñoom dañu ragal dañu ragal Ablaye Wade kenn ñoo ko ci affronté. Mm-hmm. donc amoon na ay ay qualité yoo xam ne ci moom parce que soo xoolee Lamine Diack dafa mus a am caractère ba pare aussi dafa mus a am lu ñuy wax combativité. Mm-hmm. ba pare il et très tenace. Mm-hmm. waaw dafa amoon na benn aussi lu ñu wax xaw ma idéal xaw ma na lañ koy waxee ci tu ci olof. dafa ba parfois des fois euh, bu doon défendre benn affaire. Hmm. daf ko doon défendre avec acharnement parce que dafa doon gëm li muy défendre. amoon na amoon na lu ñuy wax pugnacité persévérance courage ba pare aussi dafa amoon dignité. Hmm. loolu moo doon caractériser ay combat alors euh, opposition bi euh, pour euh, aussi euh, des ci euh, événement 2011 ak peut-être lu ko jiitu tuuti. est-ce que mhm. financièrement jàppale na leen pour ñu xeex président Wade. bon xam nga loolu des fois nit ñi dañuy spéculer xam nga di nga ànd ak nit wala nga ànd ak kilifa. Mm. am na yoo xam ne doo ko mën a wax en public. Mm-hmm. xam nga am na yoo xam ne doo ko mën a wax gis nga des fois nit dina la dénk dara ñun nous sommes des hommes où nous travaillons dans au moins. Euh, au sein de l'État. Mm-hmm. et nous sommes dañuy jege ay kilifa. donc am na loo xam ne doo ko mën a wax mukk parce que sa secret lay doon ak sa xam-xam même yow sa jabar bi ngay fanaanoon bokk ak moom benn lal. doo ko ko wax mm-hmm. man dénk na ma ay services yoo xam ne dénk na ma ay kii yoo xam ne du ma ko mos a wax parce que mm-hmm. tout ma woon ci man la di ma ko yóbbante di ma ko dénk. wala di ma ci yónni moo tax du ma ko mos a wax fenn même suma jabar sax du ko xam bi may tëddati lal. moo tax des fois nit ñi dañuy wax loo xam ne après da ree noppi. nga xam rek nga xam li nga xam parce que li nga xam loo xam ni yaa sa biiru bàmmeel rek yaa danga koy denc parce que loolu mooy tax nit ki di di la wóol di am ci yow confiance. mais bu fekkee ne bu ñu la wóoloo wala ëllëg bu fi nekkatulee nga ne def na lii wala def na lii. Mm-hmm. loolu moom dama ko mës wax même su ma ko xamee. Mm-hmm. wala ma def ko wala ma kii ko du ma ko mës a wax parce que comprendre nga. peut-être que yarewuñ ma loolu. bokkul samay nangul la loolu. mais bu budul budul sax euh, jàppale gi ci wàllu xaalis mais euh, ndax mun nga ñu dëggalal nii président Lamine Diack moom jàppale na opposition bi ci euh, anam bu peut-être weesu xaalis ngir kon ñu fexe jëlee fi di fi nekkoon di président Abdoulaye Wade ak ni ñu jàpp ne noonu la bëggoon a def réew mi soppar ñu ko jox ko doomam xëy na ak yeneen ak yeneen. non xam nga yow wax naa la ne Lamine Diack. Hmm. président Lamine Diack dafa am loo xam moo doon carac moo doon caractériser combat am. mooy la il était pugnace. il était bu jàppee du bàyyi. il avait beaucoup de courage et de dignité. waaw parce que moom xam nga xam nga loolu lan moo ko def ci moom lan moo ko def ci moom. Hmm. c'était le grand dirigeant sportif qu'il a toujours été. parce que il fallait faire preuve de réalisme de pragmatisme mhm. mais aussi d'imagination créative mhm. Mhm. parce que lool moo doon tax moom daf ko ñuy wax naan c'est ces idéaux d'indépendance moom dafa amoon benn liberté d'indépendance de justice de liberté et de paix moo tax gis chaque fois dañ ko mus reprocher son style autoritaire mais chaque fois da leen boo ko xamee nga xam tempérament ak forte personnalité am xam ne loolu moo tax nit ñi di wax ne dafa autoritaire. Hmm. mais du woon autoritaire parce que moom daaw jël action di ko concevoir pour un cadre collectif non non. Hmm. moom gis nga moom action da nekk benn autorité boo xam ne dafa lu naturel la quoi lu naturel loo xam ne dafay dafay génn ci conviction ci comportement am parce que loolu la bëggoon. parce que soo gisee ni apparemment da ngay wax ne il est autoritaire mais mais quand il s'agissait de ou bien d'appliquer ou de faire respecter hmm. mais nag toutefois il aime écouter Eh, mun na changer position léegi ah. waaw mais mais bi ñu defee Benno Siggil Sénégal ba mu ne la yow wax nga dëgg. tu avais raison ci le fait que nga ni que ñii ñoo la gën a bëgg nguur gi. est ce que boobu dafa rocceeku ci jàppale bi mu leen doon jàppale wala continuer na di gunge opposition bi pour que ñu xeex li fi nekkoon te ñu bëri njortoon ne. Sénégal dañ ko bëgg a def genre royaume. xam nga président la Diack. Hmm. c'est un homme d'État. te soo xoolee le combat qu'il a toujours mené. xam nga combat lan la woon bi ko opposition bi di seet. Hmm. opposition bi ñu ko seetee pour lan la woon lenn la ñu bëggoon renforcer l' autorité de l' état républicain moom c' est un républicain il a toujours travaillé dans l' hmm. moo tax loolu moom moom la ci jublu woon. renforcer l' de l' républicain. Hmm. parce que peut-être que boobu moment boobu état bi xëy na am na fu muy sooxee. Mm. am na fu muy njaaxanaayee am na fu muy tëddee. Mm. mais moom de tout le temps il a toujours travaillé dans une administration républicaine. Mm. donc forcément aussi bu ko nit ñi seetee pour que au moins ñu restaurer l'état <laughs> républicain. daf ci nekk. voilà. Mm-hmm. alors mais pour ay xeex kii wala jàppale kii wala xeex ki mm-hmm. moom li ko soxaloon mooy comprendre Sénégal euh, taxaw waaw Sénégal ba pare moom man musuma ko gis mu attardé wu ci yoo xam ne affaire loo xam ne c'est insignifiant wala c'est mesquin hmm. non non lii moom lépp lu mu doon def da ko daan def parce que il était foncièrement honnête et très franc hmm. seen émission démb ak tey ngeen di teewlu ci réew mi FM ñuy waxtaanee président Lamine Diack ngir ñi ko xamul wala yu bari yu ñu xamul ci moom dalal ci mbay Jacques Diop di ku ko jege woon lool journaliste conseil technique en communication ci ministère des sports alors Mbaye Jacques fi nga daanale foofu la ñuy yëkkatee euh, wax nag président Lamine Diack ci ay jikkoom comportement am tàmbali nga ko junju mais nit ki nit ki bu weesoo fonction yi sportive administrative mais nit ki kan la woon. président Lamine Diack pour nga ko dafay metti parce que xam nga pour nga situé ko dafay metti hmm. président Lamine Diack dafa amoon benn intelligence bu ko caractériser boo xam ni gis nga gis nga soo xoolee euh, da koy qualifier sax comme genre pharaon ku xamoon pharaon. mu hmm. genre pharaon xam nga pharaon dafa amoon xam-xam. Hmm. il était très intelligent. comprendre xam nga muus am xam-xam ba pare dafa woon fin le président Lamine Diack loolu moo doon intelligence am ak énergie gis nga loolu ah. mm-hmm. moo doon force am ba tax chaque fois xam nga lu mu la daan ñaax. Mm-hmm. il faut reconstruire l'unité nationale. chaque mm-hmm. fois man loolu daan déglu ci seen discours. d'accord waaw loolu daan déglu ci ba tax na aussi amoon na aussi amoon na diine parce que dafa jàng alxuraan. parce que man sama papa la Lamine Diop mos na ma wax benn benn anecdote ne ma Lamine Diop fu mu mës a gis Serigne Abdou Aziz si Dabaax. bu julli jotee sëñ Abdou day wax Lamine Diack juuteel hmm. wallahi loolu moom moo ma ko wax et benn jour mos naa ko wax sax muy ree quoi moom day muuñ ree hmm. il n'a pas voulu aller loin de ça mais sëñ Abdou Aziz Dabakh fu mu musaan gis Lamine Diack daf koy wax Papa Lamine jiiteel noonu la ko doon wooyee Papa Lamine hmm. donc xam nga ba pare nag mu amoon xam nga moom mu amoon en dehors de son intelligence Lamine Diack dafa amoon xam-xam am diine ba pare am flair donc flair boo xam ni gis nga moom dana accepter critique dana accepter contradiction mhm. loolu moo taxoon gis nga mu amoon benn genre personnalité boo xam ni parce que loolu la ko am loolu moo taxoon aussi nit ñi bëgg ko waaw bëggoon ko parce que ku wax ak moom dangay xam ni kii da lay déglu mhm. boo sa boo waaw te am na kilifa yoo xam ne ñemewuñu wax lii nga ne lee. non moom da lay déglu man déggoo ma man dama daan dem ñuy discuter ma ak moom soit këram Mermoz wala fële à l'IAF mhm. exemple au championnat du monde discuter dañu daan discuter ay heures parce que man des fois contradiction j'aime la mais loolu moo lay ni moom c'est-à-dire que en gros lu ñu la mën a wax ci Lamine Diack mooy mhm. yàlla moo ko moo ko tabax indi ko mu jëriñ askanam mhm. jëriñ jëriñ jëriñ Afrique jëriñ jëriñ pratiquement le monde parce que gis nga nga daan dem en Afrique soo na waxoon sax le président la muy jàkk mais dañ lay mais mais dañ lay dañ lay xoolaat quoi yow. Hmm. parce que dañ ko dañ ko adoré woon foofu mooy gis nga non euh, xool ko benn bët boo xam ni bëtu kilifa. Hmm. parce que bu ñëwoon da xam ne kilifa gi ñëw na. Hmm. ba pare d'une modestie il venait la main de tout le monde su fekkoon ne dans une salle. il y cinquante personnes il venait serrer la mais à tout le monde parce que nit ñi dañ doon wax sax humilité Euh, ci kilifa baaxul mais loolu yëpp euh, parce que euh, c'est sa sa culture et surtout sa fibre de dirigeant sportif moo ko jox moo tax sport dalay may lu bari te peut-être doo ko xam balaa nga xam ëllëg mu jëriñ la feneen waaw ba pare liggéeykat la woon gis nga président Lamine Diack bu sagaan ci dossier bii ah. Mm-hmm. tant que parewul du du du la tontu wala du wax a yow. parce que il était très c'était son homme de dossier. Mm-hmm. waaw ba pare. gis nga très sérieux dans ses obligations gis nga liggéey lii. Hmm. tant que jeexul du du jóg. tant que jeexul du dem ay comme par exemple par exemple liggéey benn affaire jógaat dem temps libre ñëwaat. xam nga hmm. non moom tant que jeexul liggéey bi jeexul du jóg. Hmm. waaw du jóg loolu moom ba pare nag mu amoon dafa la doon wax chaque fois y a deux choses qu'il faut avoir comme principe. da lay wax <laughs> équite ak éthique dana ko daan wax sax fois ak dignité équite éthique dignité dana ko doon wax nit ki mu ne su ñàkkee loolu rek amatoo dara. Mhm. Mhm. amatoo dara. alors président Lamine Diack euh, nag euh, Mbaye Jacques bi mu demee bay xëy na jeexal carrière ba bëgg a noppalu ci la ko nattu dab muy ay tuuma yoo xam ni teg nañ ko ci kawam euh, wàllum corruption passive blanchiment aggravé muy mhm. lu xawoon a gàkkal lool euh, carrière ak dundam ci fi nga xamee ni fa la yegsee euh, ci mhm. noppalu novembre 2015 la ñu ko mettre en examen natt mhm. boobu Mbaye Jacques yéen ñi ko jege ak moom naka ngeen ko dundee man natt boobu man parce que bind naa ci xaw nañu ma sax dàq ci ministère ndax papier yi ma ak euh, position yi ma doon am. Ah mais c'était des positions de principe parce que dañu ma doon wax ne te dans un cabinet te la man leen non non moi je suis d'abord de sport su fekkee ni lii mooy tax ma toog ci cabinet bi wala ma jóge fii dinaa fi jóge parce que pour des questions de principe parce que principe laay défendre. Hmm. man su may défendre tey principe laay défendre du ma xool intérêt diw wala parce que non. gis nga bi ñu ko damay expliquer processus bi ñu ko arrêté bi bi ñu ko bi ñu ko mettre en résidence surveillée mm. Lamine Diack waa Paris les Français pour te dire que tellement ils sont ingrats c'est des gens ingrats je l'affirme quoi dañu ñëw invité ko ne ko Paris Paris deux mm. Paris de mm. ils ont envoyé un billet et quand il a atterri à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle mu ñëw benn taximaan moo ko jël si ñu ne ko les gars un peu occupés. Mmh. ils un peu pris on demandé monsieur Diack de venir vous prendre. tu vois xelu tubaab lu mu bonee ak ñaaw. waaw seen malhonnêteté. quand il est venu le prendre war ko yóbbu hôpital astafurla hôtel mhm. yóbbu ko dans un hôtel boo xam ne hôtel boobu du hôtel sax deux étoiles pour pour euh, un un pour le rang du président Lamine Diack tous toutes les fonctions qu'il a occupées dans le de par le monde là. Hmm. membre du CIO président de Leaders AF la première discipline olympique. yóbbu ko benn hôtel boo xam ni rek mu mel ni hôtel de passe la yooyu quoi ne ko les gens vont venir vous prendre ndekete boobu euh, les gars là les enquêteurs ñu koy xaar mu ñëw rek ñu ne ko c'est la justice financière oui def ko résidence xam nga loolu séquestration la. parce que nit boo ko waree entendre sax mais mu dem ak avocat mi nga ne ko mais nous devons vous entendre suite parce que pour Lamine Diack kilifa la. kon dañ ko nax ba mu ñëw. dañ ko nax ba mu ñëw ne ko Paris deux mille vingt quatre. Mm. envoyé ko billet ne ko Paris deux mille vingt quatre dañuy organiser seen festivité yëpp. way mm. man ci laa après ci laa contrer Eiffage ba léegi mënuma dem seen activité parce que boobu Eiffage. Mm. à l'époque ñi ngi xeex pour Lamine Diack nekk le parrain de première euh, kii euh, premier marathon. ñuy xeex. paa bi sax bëggul woon mais on l'a convaincu ba mu d'accord mhm. ñoom quand Lamine Diack a été kii rek ils l'ont enlevé de kii moo tax ba léegi man mënu ma digérer FH du ma dem seen meeting du ma dem seen marathon du ma dem seen benn activité pour des questions de principe mhm. waaw parce que à l'époque man jëloon nañ ma pour fay ma pour ma liggéey ak ñoom mais quand ils ont enlevé le nom du président Lamine Diack parce que moom lañ defoon ak kii sow le sculpteur ah, mhm. ñu dindi président Lamine Diack ci laa ne ñii ñoom dogoog naa ak ñoom dina ak àllaaxira damay jaar autoroute à péage sax lu <laughs> ma gëm. Mhm. léegi président Diack loolu certainement def na ko choc niñ ko naxee indi ko jàpp ko certainement buñ ko newoon dañ la bëgg a déglu ci lii ay leeral. non day dem yaakaar nañ ne day dem. waaw day dem parce que donc le fait que ñu defee noonu nan la ko nan la ko def moom bu dee. xam nga ci dara non man bi ma demee foofu xam nga man tu sais. Mhm. biñ demee dem naa fa trois fois. mais quand je suis parti la première fois yàgguma ci kër ga maa ngi Amadou Diaba ñoo deuxième fois bi yàgguma ci kër ga parce que boobu mi ngi kër capitaine. Hmm. Seydou Dia capitaine mais mënu ma yegg parce que mënu ma gis président ma téléphoné ko. Hmm. man président je suis pas venir mu ma ma ko non je peux pas venir parce que man xam nga rek parce que des fois di nga ko woon xool daal ci jamono. voilà parce que man hmm. mënu ma comprendre avec toute a eu pendant moom dëgg bu mu nekkee ak dignité bu mu am ak principe ak éthique ak mm-hmm. morale ak bonne gouvernance bu mu prôné ñu koy taxal ci yoo xam ni parce que tout simplement dañu bëgg effacer sa mémoire collective man c'est après que j'ai compris ma ma woo ko téléphone ñu waxtaan après ma dem fa benn yoon demaat ma boobu deux fois yëpp fa dem parce que j'étais xam nga. Mm. ma demaat fa benn yoon quand je l'ai vu après c'est lui qui me remontait le moral donc pour dire que moom dëgëroon na malgré que. xam nga xam nga xam nga ñu def la en résidence tu ne peux pas tu ne peux pas circuler. Mm. mais di nga mën a nekk en à Paris en France. Mm. tu ne peux pas circuler mënoo gis sa ay njaboot mënoo dem sa kër mënoo dem sa kii xam nga loolu des fois sax sa peut te secouer. Mm-hmm. mais da ngay dem moom mu mu mu xoolal mu mu mu mu mu mu mu taataan la ci diine. Mm-hmm. gëm loola diine gëm loola sunu borom tabaaraka wa taala donc nga xam ne kii après nga ne non kii yow ngay ñëw ci xala moral très bas mais moom moo lay sax yëkkati moom moo lay remonter le moral. après yow doo xam ban qualificatif ban superlatif. Mm-hmm. ngay wut pour qualifier kii da nga naan kii daal nañ ko bàyyeek yàlla rek. Mm-hmm. mais moom loolu noonu ñu tegoon ci kaw yëpp comme tuuma ak euh, xëy na teegi euh, et tout nan la ko nan la ko jàppee woon moom nan la ko gisee woon. daf ko jàppee woon comme ndogalu àdduna nee na dans vie. nul ne peut échapper à son destin bu ne c'était écrit dans l'histoire waaw dana koy wax chaque fois gëm leen yàlla ngeen xam ne lii nattu yàlla la. te gis nga sunu borom tabaraka wa taala bi mu ko waree libéré libéré nañ ko mu ñibbi si toog six mois sunu borom jël ko donc cela veut dire que quelque part c'était xam nga destiné à sa vie mais il faut comprendre que c'était aussi une machination des occidentaux moi je vais vous faire au moins la genèse de toute cette histoire mm. parce que quand il y a eu l'affaire euh, euh, comment il s'appelle quand il y a eu l'affaire Zola Zola Bët c'était un athlète Zola Bët c'était un athlète sud-africain bu doon daw euh, demi-fond tànku neen la doon def hmm. euh, les gens dañuy jël apartheid def ko ils ont fait l'apartheid pour l'Afrique du Sud hmm. les Anglais ont refusé Zola Bët donc mi ngi doon daw pour le parce que benn athlète blanche la woon tànku neen la doon dayoo la mi ngi doon daw maintenant quand il y a ce processus là et la suspension de de de de de de l'Afrique du Sud pour des problèmes raciaux, il y a eu cette suspension. Ça n'a pas aimé un certain comme l'Angleterre. Mais on s'est rendu compte qu'aussi l'Angleterre ne respectait pas ça. Les gens ont pris la décision, de mm. la décision de venir maintenant, yobbu le siège de l'IAF à Monaco. Parce que Bobo Monaco aussi, c'est un pays, bon, le fisc n'est pas cher, donc les dépenses et tout, comprendre, c'est un pays, comprendre. Mm. Quand ils ont mm. Anglais. Et il y a eu aussi le président de l'Agence mondiale antidopage, euh, Dupont, mmh. à un moment donné, quand il a voulu aussi lui se présenter à une élection euh, aux Jeux Olympiques, le président de a courageux, il a dit que ouvertement, moi je ne soutiens pas. Oui. Mmh. Et ça, ça n'a pas plu aux Anglais. Mais l'autre aussi, c'est un peu euh, stratégique. Parce que la Mindiac avait fait de Sergei Goubouba son, son potentiel successeur. Mm -hmm. Donc, y avait, pour, au poste de, de, candidature pour la succession du président Diak, il y avait Sergei et Sébastien Coe. Mm-hmm. Mais après, Sébastien Coe, Anglais Bim ont gagné. Quand l'Anglais a gagné, ils ont commencé. Donc, la chasse aux sorcières. Mm-hmm. Tambale Koureb. Tambale Koureb, parce que nous, déjà le fait que ñu jëlee le siège là le seul siège euh, de la fédération internationale à Londres ça ne va plus et en plus aussi ñuy xeex seen ay compatriotes ne duñ ko duñ ko soutenir yooyu yëpp ba pare encore la Diack soutenir oon Sergei Bouka au dépens de Sébastien-Coe parce que xamoon na ni waa jooju Sébastien-Coe ne pouvait pas développer parce que addis mi dafa dee complètement sur le plan mondial hmm. et soo gisee ils ont fait un communiqué lapidaire bi le président Lamine Diack quelqu'un qui a géré géré ko de deux mille un à deux mille quinze xam nga deux mille seize dix sept seize ans. ah hmm. dix sept ans ak deux mille euh, parce que quatre vingt dix neuf ba deux mille quinze dix sept ans ñu géré ko IAF bi ñu ko géré IAF sans compter comprendre nga xam nga communiqué lu ñu def. Hmm. selon l'IAF selon non selon la confédération africaine de football. Hmm. comprendre nga nous vous le rappel du président de Lamine Diack wallahi communiqué lapidaire je vais vous envoyer le communiqué vous verrez tous je vais l'envoyer à la presse parce que moi suis en train maa préparé benn benn contribution pour attaquer ces gens-là c'est c'est c'est c'est communiqué pour un pour quelqu'un qui a géré la présidence pendant dix-sept ans xaw ma dix-neuf ans hmm. nga def ci benn communiqué deux lignes lapidaire xam nga ban photo photo mi ñu génnee hmm. photo bi muy defee saut à hauteur en à longueur en mille neuf cent a sept xaw ma cinquante neuf au lycée Van Vollenhoven bu bu mu nekkee ndaw daal. waaw xam nga loolu moo lay wone c'est pour ignorer c'est pour effacer la mémoire collective mais une mémoire collective on peut pas l'effacer gis nga Fatou. Hmm. gis nga dama la wax benn affaire tey le sport appartient aux hommes noirs. Hmm. gis nga quand on l'a nommé c'est une kii rek c'est une euh, petite parenthèse. Hmm. bi ñu falee Lionel Messi pour son septième xam nga huitième ballon nga ñëpp dañ wax Lewandowski. xam nga soo xoolee depuis presque plus de quinze ans. Mm-hmm. c' est Messi et Ronaldo. Mm-hmm. donc ñoo ñoo koy xëccoo. mais xam nga loolu yëpp lu ñu ci jublu tubaab bi. Mm. pour effacer la mémoire collective de Pelé. Mm. loolu rek lañ ci jublu Pelé il a été champion du monde à dix sept ans c' est un noir et en même temps il a remporté trois coupes du monde c' est le noir. c' est le seul même le seul au monde qui a remporté trois coupes du monde. Mhm. trois coupes du monde donc nègre la. Mhm. léegi pour essayer d'effacer sa mémoire fexe nañu tout pour Messi jël coupe du monde jëlul coupe du monde. Mhm. Ronaldo pour mu jël coupe du monde mënul jël coupe du monde lépp pour effacer mémoire Pelé la keroog boo xoolee quand Cristiano Ronaldo a marqué son sept cent quatre-vingtième but. les gens ont dit oui Cristiano Ronaldo vient de battre le record à la télé. j'ai entendu sa Mm -hmm. après le gars a beneen waa ji a dit mais Pelé a marqué mille buts benn waay ne non les mille buts c' aussi des à lentrainement entraînement. pour te dire que le mhm. racisme mhm. est aujourd'hui dans le sport. Mhm. gis nga racisme boobu loolu la ñuy jéem a transmettre pour effacer la mémoire collective des hommes de couleur qui ont réussi pratiquement dans leur domaine respectif. loolu la racisme boobu yow tamit nga gis ci biir mbiru Lamine Diack. bien sûr racisme am na ci. mais en même temps aussi règlement de compte. règlement de compte am na ci parce que yow ñi nga xam ne ñoom ñëpp ay Gabriel Dollé ay Nick Davis Nick Davis ki ay été le directeur de la communication de l'IAAF e qui est anglais ah mm. qui est qui est anglais de surcroît anglais qui le directeur de la communication de Lamine Diack pendant quelque après qui a été le directeur de développement kenn topp ko xam nga lu ñu ko mujj a wax da ngay démissionner de ton poste ñu wutal la beneen poste à nga dem toog. nga dem toog parce que anglais moo nekk foofu. Hmm. xoolee ñu ci topp ñëpp amul benn tubaab benn nit ku weex bu buñ ci tëj. pour des choses yoo xam ne ay futilité ay raconter des bobards yoo xam ne amuñu preuve. Hmm. parce que sax soo amee benn affaire da ngay génnee ay preuves matérielles mais pas si des preuves mais ba léegi mënoo génnee ay preuves matérielles. Hmm. alors taxawaay ban la ci. Euh, ba encore mu mel na am mu am intoxication. ñuy sax la presse sénégalaise. ah une certaine presse oui. d'accord alors ñu ñëw ci taxawaay bi ci état bu Sénégal am ak euh, tamit yenn doomu Sénégal yi parce que gis nañu fi ay euh, club de football yu ci jàpp lool pour que Lamine Diack euh, président Lamine Diack mun a moom boppam ba ñu bisiwaat Sénégal quand il a fallu bien sûr peut-être fay caution et tout alors boo ñu ñëw mun a ñëwal très rapidement ci taxawaay bi que Sénégal taxawu ci jafe-jafe boobu. waaw Sénégal taxaw na Sénégal taxaw na ko taxawaay bu baax parce que état état taxawaay état duñ ko nekk fi di ko wax. Mhm. parce que gis nga su taxaw état lu muy def du ko fësal. waaw mais xam nañ ne état taxawu na ko. Mhm. mais aussi le jaraaf sa famille naturelle taxaw nañ ko parce que tey siège bi am kër jaraaf nekk. Mhm. fële point euh, ak amitié terrain bi. yooyu président Lamine Diack moo ko daggaloon waa jaraaf may leen ko. bi mu nekkee au niveau des ressources de euh, kii domaine donc loolu aussi delloo ñu ko la rek. parce que ñu ngi ciy rafetlu di gërëm Cheikh Seck ak les actuels dirigeants du jaraaf ak les sages du jaraaf. Mhm. parce que nit noonu ngay def xam ni yow am nga fi benn dirigeant wala benn kilifa boo xam ni mhm. il a beaucoup pour le rayonnement du club tey mu nekk ci ay jafe-jafe mu war na ni yow war nga ko ci mën a génnee nga def ko. Mhm. parce que loolu mooy gor loolu gis nga jaraaf. dafa am benn devise. yaru yeewu yeete. les trois Y la. yaru yeewu yeete. Y Y Y les trois Y donc ñoom dirigeants yi loolu mooy yaru. parce que loolu la ñuy jàngal yeewu yeete loolu rek war na junj xel. Mhm. ba tax na bi ko defee vraiment ñun ñëpp dañu julli ñaari rakk dolli ñaan sunu borom. Mhm. ñaanal waa Jaraaf mais ñaanal aussi le président la Lamine Diack parce que li aussi euh, une fierté pour nous le Sénégalais les Africains mais nous les Dakarois mais nous aussi les Médinois. Mhm. parce que man Médina laa juddoo fa laa alors may Jacques ñu jeexal ak euh, xëy na lenn loo dund ak président Lamine Diack mu marqué la lool loo dul fàtte mukk sa diggante ak moom moo xam ci wàllu lu mu def nga gis ko mu mu mu am lum la ci wax wala loo ngeen dund yéen ñaar loo xam ni daal tey vraiment bëgg nga nit ñi jàpp ko ci jëf ju rafet ci président Lamine Diack. Euh, euh, xam nga dem nañu à Osaka en 2007. quand nous sommes partis à Osaka en 2007. hein, le président Lamine Diack a été reçu par l'empereur du Japon xam nga Japon empereur bi di toog mën nga toog ay dix ans mosoo doo ko gis. parce que ils sont très rares. Hmm. il a été reçu ba pare lors de euh, de il a été reçu par la Diack le président Lamine Diack a été reçu ñu décoré ko. Hmm. de la plus grande distinction japonaise loolu ñu ngi koy jox foofu bariwul da koy compter du bout des doigts c'est pas comme nos décorations nga xam ne chaque jour nga décoré kenn. Hmm. Euh, mu ñëw à l'inauguration euh, non à l'ouverture des des championnats du monde toog jotu Lamine Diack et moi j'étais à l'hôtel après après l'inauguration les compétitions benn japonais ñëw ak sa famille quoi ñëw ne ma ñoom euh, japonais bi nee na il a plus de soixante xaw ma naa ko et mm. daal soixante huit ans wala soixante mm-hmm. il était venu avec euh, trois de ses enfants et sa femme ñu ne ñoom ils sont japonais ils vivent là depuis xaw ma depuis leur naissance il a travaillé mais il n'a jamais vu l'empereur il n'a jamais serré la main de l'empereur xam nga donc loolu moo lay gis nga ñoom de seen tradition yi xam nga ñoom dafa am ñu gëm mm-hmm. léegi mu na empereur bi mm, ndax voilà donc tu vois xam nga ñoom ñoom c'est des gens c'est des conservateurs. waaw loolu gëm kilifa. ma mm-hmm. wax ko le président Lamine Diack la nga wax le président Lamine Diack Lamine Diack ne ma indil à déjeuner. <laughs> je te mm-hmm. mais waa bi ma ko waxee ne ma leen ma invité leen parce que mun ko quoi. ma jox ko benn jour loolu defe naa après deux jours après pour mu ñëw. Mm-hmm. président Lamine Diack mais waa ji ah, bi muy dem boo gisee ni mu doon nuyoo Lamine Diack man ni mu doon nuyoo. xaw <laughs> a yóbbaale loxo bi ba pare <laughs> ay photo mais photo na foofu. Mm. donc pour le dire que. nit ku woyof la waaw. Mm-hmm. ñëw nañu aussi fii Dakar. Mm. ñuy réfectionner le stade Iba Mar Diop mm. la piste. Mm-hmm. par Mondo Mondo boobu y le ministre Youssoufa Ndiaye qui était euh, euh, le ministre d'État ministre des ndem si yàlla yu si yàlla na ko yàlla xare àjjana mm-hmm. tas euh, yóbbu ko fi ndaw si jannatu yu gën a kawe ah le président Lamine Diack Mondo état du Sénégal jël engagement ak Mondo pour la réfection de la piste du stade Iba Mar Diop. Hmm. parce que boobu y avait un plaidoyer de Ami Mbacké Thiam qui champion du monde ak yooyu pour ñu defaraat seen piste bi le président Abdoulaye Wade avait donné des instructions pour que hmm. l'État du Sénégal puisse ñu toog un an fay ñu ko fay ñu piste bi. Hmm. Mondo envoyé des lettres qui sont restées sans suite. le président Lamine Diack ñoom ñu mettre ko en demeure pour publier ne dañ koy sax parce que moom moo jëloon engagement. bon là c'est lui qui a payé. ñaata la woon toutes les lettres c'était des millions. Hmm. parce que piste piste moo gën cher gazon. ok c'était des millions après il m'a dit ça il ne faut jamais l'écrire il ne faut jamais le dire à la presse si je le fais je le fais pour mon pays. Mm. donc tu vois. moom mu ñu fay moom mu ñu fay la piste là. Hmm. oui. jërëjëf parce que boobu Mondo ñu ngi soxla seen xaalis. waaw. jotuñu ko y' a beaucoup beaucoup de choses beaucoup d' anecdotes yoo xam. dëgg la la génération bëri na bëri na lu ñu. la génération 68 65. korite tabaski bu nekk ku nekk ak sa enveloppe ngay dund ak nga ñàkk dund sa njaboot nekk fi yëpp génération 60 1965 68 ñi def asmara ak tunis. Mm-hmm. loolu moom je peux en témoigner donc y' a beaucoup de choses yoo xam ne ak ñun lu ñu doon defal ñun nag donc. Mm-hmm. donc Lamine Diack amul fii kenn ku mu seqalul teraanga ñi mu yóbbu màkk moom. Mhm. kenn mënu leen compter na nga daan yaakaar ni sax ci xalif général. na ko yàlla fay loolu yëpp fi mu tëdd. ñu bëggoon rek def waxtaan wi seede omage itam delloo ko njukkal ndax mérité na ko président Lamine Diack mi fi bàyyeekoo ñetti fan weeru décembre moom la ñu doon waxtaanee ci Demb ak Tay mbay Jacques Diop ma di la gërëm bu baax a baax ci waxtaan bi ak disponibilité bi amoon naa mbégte lool dalal ci euh, émission Demb ak Tay. waaw parce que Lamine Diack lépp lu mu war a defal njabootam defal na ko ñu nekk ci biti. Hmm. te njabootam mosoo leen dégg ñu kaas njabootam mosoo te gisoo Lamine Diack benn njabootam bu dévié. Hmm. loolu mooy yar na njabootam ci diine. Hmm. yar na leen ci teraanga yar na leen ci sutura. amu ci kenn koo xam ne nga dégg ñu ne la kii ku bon la wala kuy tox yàmba la wala kuy naan sàngara wala kuy jàdd donc loolu rek. am na solo vraiment lu am solo la. lu am solo la. am na kilifa jërëjëf Mbaye Jacques Diop euh, mbokk yi yéen tam jërë ngeen jëf ci déglu bi euh, ñu gërëm jaaw jàll mi fare woon ci jàppandal gi ci Thiam Ngom la woon ci kàddu gi seen émission démb ak tay la woon ci réew mi FM mën ngeen a teewluwaat waxtaan wi ci réew mi officiel mooy suñu chaîne ci YouTube di daje beneen dimanche incha allah ñu waxtaanee leneen ak keneen Mbaye Jacques jërëjëf ñu yendoog jàmm.